Thank you. àddina salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum sama mbokku internet euh, sans limite TV euh, mbégte ak joie euh, seen doom seen xarit Fatou Mbaye nee naa la lépp loo xamante ne actualité la lépp loo xamante ne people la man seen doom macha allah dama ciy dox sama tànku jéego tey nag maa xewle su ma nee leen maa xewle tey mami Cobra moo xewle sama jumelle d'amour borom keskaay borom VZ nee naa la boo xewlee tubaar fakàlla macha allah damay ñëw ba mu neex keneen ku mel ne man day ñëw nee la sot see ci la sans kii nag sama la. borom vidéo yi nga xamante ne ah, vidéo bu baax ci réew mi chutune ah, bu meilleur ci réew mi rek ah, moo koy moo koy def borom keskaay mu nekk frère ci Mami Diallo su ma la fekkee war naa maa ngi lay ngi lay fay. sala Mbaye maa ngi lay fay maa ngi nuyu képp ku may seetaan ci Sans Limite TV tey nag franchement plaisir la ñuy àndal di nuyu mbooleem ku ñu fekk ndax dañu fekk suñu bis. Uh-huh. ñu fekkuñu Thiès euh, si kër Mami Cobra Mami Cobra di borom Thiès di pratiquement mën naa ni borom Sénégal maa ngi leen di nuyu. tey lan nga wax tey ci bis bi Mamy Diallo safar la woote. waaw Mamy Diallo dafa woote safar mu tombeek jour anniversaire mu nekk loo xamante ni ku ko teewul dama yaakaar ni da ngaa amul jot parce que nit la ko nga xamante ni dafa disponible si ñëpp nit ku baax la daal en fait. dañuy dugg ci biir ah, ma wan leen li xew fii nee naa leen Mamy Diallo tey safar la woote ak sans limite dara du leen fumb macha ah. bàjjen national. maa ngi nii Fatou Mbaye. sa site ngi nii sans limite. sans limite ngi nii amul limite. waaw barke yéen tibe ñoo baax de ñoo gën ñoo ris moom la àdduna bépp di seetaan. dëgg la sans limite amul limite. Mhm. bu ko kenn limité it. dëgg la kii ku ko limité dañ la limité de. Mhm. tabarkàlla macha allah maa ngi lay fay di la nuyu. di sa wàcc waaye sama doom ji. Mhm. di la ñaanal jàmm ak sutura. ci barke nabi yàlla na yàlla mi borom kur ku baax. si waay ci barke nabi waay. amiin na nga yàlla nga am jëkkër Fatou. <laughs> amiin waay yéene tey sa doom sa xarit sa rak nit koo xamante ne mën naa ni say peggu la màggee mu nekk mami mami Diallo ñun mi Diallo lañu xam mais mami Cobra tey mu tombeeg safar muy feete li nga xamante ne mooy anniversaire am bis bu dellu si nag dafa neex rawatina bu dellu si desuwaat ñi koy feete ko màggal tey ñu fekk la fii benn dëkk ñaari gaar keeskaay war na bu ñu def fekkee tey wax ak yow. waaw mi ngi noonu ma mi li mu woote dafa rëy macha allah mhm. ndax tey su ko neexoon def tànn biiram. wala su ko neexoon def def def dagañam yu saf sap wala su ko neexoon wut ay tamaam rit ko fii tubarkalla waaye def la dane ak cant laa koy woote cant sëriñ Saaliw cant sëriñ Touba moom laa woote sama anniversaire bii dama ci cant bu baax ndax dañ daa ñëw ay anniversaire am na wax dëgg yàlla mais bi moom wute naa ak anniversaire yi macha allah ndax nit boo demee ba ci yàgg da ngay ba ñeeku mais man kat fanaa ba doyal comme man rek fanaa ba doyal mais nañ nañ nañ sant ñu baax ñi war nañ sant nañu baax looloo baax nañ delluwaat suñu bopp ci yàlla xam fi ñu suñu tànk xam ñuy def xam li ñuy wax ndax li mu def nii tubaarkàlla macha allah te xale yëngooguñu bagage yaa yaa ngi nii yaa ngi di te nga gis fi dese de man xam naa ci moor yi moom ci laay bokk. <laughs> ci des ñuy dese ñu moor. néew baa nga jógee ca cant ga te nga koy dégg. Zouby <laughs> Kata en tant que porteur de voix euh, gis nañ ni euh, euh, audio yu fuité bari na fii ci Sénégal waxanteeg sa nawle wax ci génn wala ngeen jote weerante gi ah, tey loolu lan moo koy saafara tey loolu yaakaar nga ni war na mën a am saafara. xam nga saa yi ma defee interview man dama naan la audio ma kenn waxuma kenn seetu ma kenn dew ma ci kenn sama bopp laa laa jàpp ñun Sénégal dafa dafa yàqu Fatou Mbaye barke a Hadj Malick ndax dangay wax nit léegi dangay wax ak mbay léegi. ne ko faatu bu ko mami yëg de ngan ma bi billaay du ko yëg te da ngay waat barke Alaaji Fall wala barke Sëriñ Babacar du ko yëg jël audio ba parce que mami ni ko keneen yëg ñu koy jàppante di ko jàppante bu audio jàmbur yi fuite Fatou Mbaye ana sutura ana pat ana jàpp seen jàmbur ana ana bañ dem ana bañ a dikk nag léegi nag gis nga Sénégal boo toogee ñu ni toog nga nga dem ñu ni dem nga nga wax ñu ni wax nga nga tëdd ñu ni tëdd na loo def ñu wax balaa caag yow nga nit pat toog jàpp sa njàmbur toog sa kër man fa dem ma fenn seeti ma kenn sama yoon niwu ci kenn ku nekk la la neex def ko on fu man sama bopp laa lijjanti sama borom kër sama njaboot chaque jour loolu laay wax lijjanti ma keneen ojo maag ma Samba audio mag ma Demba waxuma kenn man boo audio bëgg ma bàjjan nanga ma naa la naa la woo doo ma déggaat loolu lu ko gën a neex jàpp sa njàmbur xam da am ay nawle xam ne da ngay boo dee kuy sëy xam ne da ngay sëy boo dee kuy sëy xam da ngay jaayu da ngaa bëgg a jar te ñu jàppe la amee la ci digg dëkk bi di la jàpp jàpp ba mel ne ci ceebub dëj loolu baaxul waaye nit nañ maanu nañ bàyyi yàqante bi ay waay faat man sama day daw sax billaay wallaay nañ bàyyi yàqante bi lu waay xamal nit ci lu bon wax ko pourtant nit a ngi def lu baax chaque jour benn bu ndaw lu ndaw rek nga yàq ko nañu rafetal suñ xol yi nañu rafetal suñu xol yi te bëggante li naan kenn bëggul kenn ku ne sa bopp nga bëgg dëgg la kenn bëggul kenn ku ne sa bopp nga bëgg léegi nag yow man su ma xamee noonu man xam naa ñi may jàpp du bari de man xanaa ma dof wala sama xel mi dem dett la yéedi la gën a neex si sa jëkkër waaw baal faa demee waaye tamit nag tu es beau uh-huh. tu es gentil <laughs> la donne la l'argent ko dafa baax Fatou dafa dafa neex ba pare sama jëkkër dafa baax faatu Mbaye ak sëñ Babacar mm-hmm. kooku dama koy ñaan gudd fan ak wér ma yàlla bëggee na ma bàyyeek moom lu ko dal na ma dal lu ko nar a dal na ma dal billaay wallaay taala damaa xam man damaa xam te moom xam na su ma naree njëkk a dee sama yàlla naa ko njëkk a dee billaay dafa baax daf ma yërëm xam ne man xam ne ni jabaram tubaarkàlla gaynde la man nag gaynde laa Fatou Mbaye dama doon wax kat rek man damay jëf te li jëf ñu bari duñ ko gis ndax du ma nekk ci tiktok bi wala ma nekk ci kii bi naan maay def lii maa def lii man damay jëf wala pat nag pat def man li may lépp lu may def pat laa koy boole loolu mooy sama format waaw. kontaan nag ñu ngi lay jaajëfal. maa la gën a kontaan sa monsieur le caméraman bi ndeysaan nu mu tuddati. tumaane ngi tumaane mbaa de moom la waal di way. moom la moom la tumaane tumaane mii. di làkkatu kontaan nañu ndeysaan ñu ngeen ci tey waaye fekk ngeen fi tàngaay woo xamante ni ngi nii. ku ko nar a limité yow la ñuy limité mais tàng na de. Fat Mbaye Fat Mbaye kees tàng na de Fat Mbaye li nga sol sama tayal bàyyi moo dëkkat diggoon na ma mbubb waaw dina la ko jox ci màggal gi ci màggal gi dama ko jël si Dakar ak sama gàmmu gi mais ba du de mhm, inshallah ci kattanu yàlla yéen soxna Fatou Kiné yaa ngi ñëw soxna Fatou Kiné maa ngi ñëw mais taalibe sëñ Abdou dama damay ñëw sànq bi <laughs> bëgg la bëgg Serigne Saliou Mbacké borom Jannatul Mahwa mooy waa Dakar digle nan jaamul leen Yàlla naan sakku leen sarax ti tuubal Yàlla borom jamono di jooy naa sunu sang jëmmi sëriñ Saaliw Mbàkke daara yi jooy naa ndongo yi jooy naa Tuuba di jooy naa sunu sang jëmmi sëriñ Saaliw Mbàkke ana kan ma fi gën a bëgg tuddee